TQG am na enduit flex contre humidité maanaam mur buy tooy teew a bàyyi wala mur buy xolleeku am na itam Coleflex pour terrasse buy senn TQG am na ay xeetu peinture yu baax pour ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci boori géej te seeni peinture di furi wala muy xobeeku TQG am na machine à teinter bu leen di génneel couleuru peinture bi ngeen mënti bëgg ci juróomi minute yéen ñi faral di am humidité si seeni tabax wala seen terrasse di senn wala ngeen bëgg peinture décoration pour seen salon dem leen TQG su ngeen demee TQG seen soxla yëpp ay faju TQG notre force la qualité. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kenkayeri daaru minam waa kër Serigne Abdou Akim Mbacké moo ngi fii ci Touba tableau hôpital Matlabul Fawzeyni lépp lu ngeen aajo woo mu aju ci wàllu quincaillerie général lu ci mel ni plomberie ak sanitaire matériaux de construction lu ci mel ni ciment fer ak béton matériel électricité ak menuiserie ba si étanchéité adresse bi benn la quincaillerie Touba Darou Minam yéen ñu nekk bitim réew te bëgg ku leen taxawul seenu tabax adresse bi benn la da ngeen fa fekk gérant bi di Serigne Mohamed Lo mu ànd ak ay ndawam yu xereñ taxawul leen ci lépp loo xamante ni moom ngeen aajowoo mooy ñaan xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. mbokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli si yonenteem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp yal na nu yàlla boole jéggal di balu xaq ñépp tey baal xaq ñëpp. di ndokkeel mbokki jullit yépp ci gan gu mag gi nga xam ne daanaka agsi na ba noppi yal na nu yàlla dimbali may nu wér ak tal ban man koo jëfe na mu ko santaane ba am ca ngërëmam gan gu nekk nag ak nañu koy séentoo ak fañu ko fas yéenee dalal ak nañu koy ganalee mu mel ne gan goo xam ne at mu jot wenn yoon lay ñëw te xam nga kañ lay ñëw war naa yomba waajal ndax fàtte moom du ca am loolu danañu ci dikk waaye gan gi mooy kan mooy koor koor nag yax bi li muy tekki mooy téye sa bopp rek téye sa bopp bu ñu demee ci alxuraan danañu ci fekk tabaraka wa taala di ñu nettali yu yàgg ya ya nga xam ne ab ay julit ab julit daf koy soxla ndax mooy téeréem bi nga xam ne ci la dëxëñ lépp lii mu leeral ko nañ lii it mu bàyyi ko noona ngir bëgg a ubbil buntu jullit yépp ñu gëstu ji ko waaye danañ ca fekk daal fu mu ñuy fàttalee mbirum Seydina Isa alayhi salaam di ko jaare ci way juram Maryama alayha salaam ne moom it ci gaa yi la ndax suñu borom wane na wane woon na ci moom kawtéef waaye daal kawtéef ga lañ cey jël tey mooy bi ko suñu boroom xoolee ba settantal ko war a feeñal ci moom kawtéef jëfa jox na ko ndigalul jëfandikoo baatub ko mooy fi muy waxe ci alxuraan ne bi mu yablee ci moom ba war a jaarale Seydina Isa ci moom alayhi salaam di wax ba agsi ci fi ko aw mat dikkale mu ne bi ko mat bi dikkalee moom kenn moo fa nekk ku ne xam na ne ku toll foofu soxla na taxawaay waaye ba mu fa tollee ci ak nite dem na ba naan ay waji lii su ma ko xamee woon nii ak a neexoon ma faatu bala mu agsi fii ndax metti waaye suñu boroom moo yab la ci moom ne ah ñii lam yoroon moo wax ak moom suñu borom ne ko bul tiit bul jàq jàmm rek ngay am ba yàlla dogalee mu mucc naan fu may jële lu ma lekk ak lu ma naan suñu boroom wax ak moom ci lu mu yëgul waaye daf ko caa xiir ne ko yëngalal ëkk tàndarma googu rek laal ko gësam ko tuuti mu ne ko yag-yag mu daal di jëb bi fa saasa daal di tóor tóor daal di ñor fi saa si mu ne ko daggal lekk tàndarma ju tooy lekk ak naan la boole <clears throat> mu ne ko lekkal te naan te ne cell nit ñi fi gën a bari ay wax waaye suñ ñëwee bay wax yow ne leen lii ma lay wax rek jàmm ci jëkk mujj ci inni nadartu lirrahmani sawma tey day li ma fas yéene mooy damay woor woor ci lan ci wax du ma wax ak nit fa lan ukallima yawma insiya ba coow la bare fa atat bihi qawmu qawmuha taxmiluhu <clears throat> yaa maryam laqad jiti shay'an fariya yaa uxta haaruun maa kaana abuki imraa sawin wa maa kaanat ummuki bariya lii num la mën a dale ginnaaw nee na nësër naa tey nësër am na àtte ci diine du ma wax tey ñu ne ko lii ngi def de kenn mësu ko def ndax yow say mbokk ki mbokk ki maama ba ci wayjur yu yàggu dii xamuñ ci woon ci ñoom lenn yu mel ni yi ngay def nii di am lu ñuy junj mu joxañ leen ne laaj leen kii nga xam ne moom laa indi adduna tey ñu ne ko kayfa nukallim man man kaana fil mahad sabiya xale ba na rellet ne inni abdullah atani alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kunt wa awsaani bilsalati walzakati ma dumtu xaya wa barran bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaxiya fas naa yéene duma wax ak nit tey nag mooy woor tey damay woor du wax waaye koor gi ñu jublut nag mooy koor gi nga xam ne moom nit day téye boppam tàmbalee ko ci tibbu sex ak fab naan boole ko cëram yépp li ko tàmbalee fi jant bi fajar di feqe ba jant bi so mariex boole ko yéene li ko wuutaleeg koor yi ci yu bare bari walla yépp sax mooy moom daa am waxtu am fu muy tàmbale am fu muy yem am ay bis benn wenn yoon lay ñëw at mu nekk wenn yoon par at waaye kañ buñ tolloo ci fan yi ñu tollu rek koor gi tàmbaleewut ci bu ñu ne weer wi feeñ na waaye mi ngi tàmbalee ci bu ñu waree séntu weer wi bu ñu ko waree séntu lay tàmbali waajtaayam moom lañuy ñuy jëkke benn ñu gis ko kenn ku nekk gis ko wan ko moroomam walla ku wóor ku ñu wóolu ku wóor ñu wóolu ko wax ne moom gis na ko su boobaa nag la koor di tàmbali xanaa ci diine des na laaj lu nekk ci néeg yi diine am tamit juróomi néeg ana fu dugg bokk yi koor ci weeru koor woor weeru koor bokk doonte woor am na ay xaaj ñaar ba ca gën a ñor ba jur yi ci des yépp mooy weer mooy woor weeru koor gannaaw bu ñu waree nag ba ci suba si ku neex man ngay woor at mépp ba mu des bisu tabaski rek waaye bii nga xam ne moo ñu tax a tey mooy bii nga xam ne moom dañ koy dugal ci benn ci néeg yi nga xam ne moom la lislaam di àttee ku ñu laajoon tey koor lu dib àtteem danga nga naan waajib la waajib farata kum war ku tuddoo ab jullit rek li feeg yaa ngi tuddoo tur wi mais gàll ci saw loos mbokk yi nag foofu mat naa taxaw tuuti loo xam ne wenn yoon lay am cim at ku ko fekke ba weesu xemesu des na des na ko fekke watam déet ku ko fekke woon daaw fekke wat ko ren muy jub si nii ne ko waajal ndax xamut sax fii ba ba ñuy war koy fekk kon la ba weesu moom na weesu ñu rëcc ko xam ne weeru koor du ay caaxaan ku di jullit di tuddoo tur wi te buñ la la doonoo ko mu namm laa naqari na xam ne weeru koor a ngi ñëw bokk yi ba muy wàcc booba pas-pas bii ak dëgër gi jullit yi am ak xam giñ xam àgg guñ ca woon waaye dañoo jóge ci lu metti muy génn leen màkka jëkk a génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul boroomam la génne waaye ay sabab la am ña koy topp topp ko ñay des des ñu ñëw amuñ fa ndey amuñ fa bàyyi amuñ fa dara ren ba ca déwén sa boobu moom julli am na li ko tax a rëy bokk na ci bu nit ki ne yàlla kenn la yonent bi nawoo ma rek julli gàll na ci woloosam julli nag ni mu toll lu ca topp ci ab lim euh, doonte as warante am na fi ñaan moo as ku ci jiitu waaye moom daal ginnaaw dañuy julli tudd ko moom doon tudd ko naaw ba yonent bi demee Madina Munawwara ba ca déwén sa ba weeru baraxlu am ñaari fan ba ko ñetteel ñetti fane baraxlu la ko yàlla ne demal ni jullit yi kutiba alayhim siyaam yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum ñu ne nuñ koy defe ñu ne dangay xëy ne ngam ba ngoon jot doo lekk doo naan muy lu bes peq ci seenug dégg peq doonte diine yi ko jëkkoon moom te bi mu ñëwee def leen a folli am na ñu ca xamoon woor waaye daal nii ko yonent bi jàngalee moom bokkut ak genn koor moom bokk yi am na koor yoo xam ne da ngay mos tuuti wala nga tànn wenn waxtu di ko lekk di ndékki te doo añ wala ngay añ te doo doo doo ndékki wala doo reer waaye moom bu julli suba desee tuuti ngay gallaxandiku tuur bàyyi ba jant bi so nga ne ngam doo lekk doo naan ñu di koy def ba mu yàgg ñu boole sa doo xool loo wërta xool doo laal loo wërta lool laal say loxo say yoxo doo dégg loo wërta déglu doo dem foo wërta dem doo wax loo wërta wax kon du ay caaxaan yax bu ne fàngale ci alxuraan boo xam ne kenn weddiwut doonut doonut lu lu luy xóot loo xam ne dañuy gëstu ba xam lu ci yàlla bëgg a wax ni ko ayaat yi bare déedéet dafa leer nañ ayaaman maadudaat ay bis la yoo xam ne su ngeen ko jëfee nii ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale da ngeen ci mën a amee taqwa taqwa nag dara jiituwu ca euh, wéet di xalaat yàlla wéet li ko di ko xalaat kon koor bind bu leer nañ la ci bis yooyu nga xam ne nit dana gis lu muy lekk man caa lekk te kenn du ko tere mu xalaat diggante ak yàlla loolu mbokk yi jullit bu nekk war na caa tàggat boppam ndax bisi nga ñëw bi yàlla di wax ne kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda koor mën na ko misaal nit ki mën na koo jàng ci koor bisi nga ñëw kenn ku nekk damay wéet ak yow ba nga defee ni yow képp a am ndax laaj yu tiifoo te laaj yi suñu boroom yowmal qiyaama ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale na ne amul wàññiku maanaam doo wax ca la nga laajoon dara laaj yi bés peq ngay dégg te moo ne loolu ku dund tase ak lislaam ay layam mën naa yomb lool yàlla nañu ci yàlla dimbali waaye bu ñu demee ci sunna yonent bi yoon wi mu xàlloon sallallahu alayhi wa sallama doon ca dox ba muy lim ci xadis bu siiw boobu ka fekk muy waxtaan mu sañ lool toog ci kanamam toogin woo xam daal jaaxal na ña fa toogoon ndax sañ-sañ bu ëpp fa yoxoom teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi laaj ko lan mooy gëm yàlla dëgg-dëgg mu wax ko na muy mel gëm na yàlla ko am la gëm ne yàlla am na ay malaayika yu muy yónni gëm téere yu jëkk yi yàlla doon wax nit ñi ya nga ca xam ya nga ca xamut yépp gëm yonent yépp ne ndaw yi suñu borom lañ laa nufarriqu bay na min rusule gëm ne bispence penc ngi ñëw gëmub dogal bu melee na la gënal ak bu xawaay safaan ak loola lépp nga xam ne yàlla mooy dogal kooku ne ko loolu de ni nga ko wax ni la demee de nit ñi tàmbalee jaaxle di laaj te lu ñu la wax nga ne dëgg la ñu ne ko lislaam jii ngay wax ak gaa yi nag mooy lan waaye ba muy lim lislaam boole na ca ku dib jullit fu la weeru koor fekk te nga wér mbokk mi doon na ko junj léegi yàlla na ko yàlla fay wér wér gi ab jullit di wéri di ci weeru koor nag ba tax koor wàcc ko lislaam moo koy wax wala boog xamkati yaram yi xew léegi ku ca dib jullit wala sax du jullit waaye yaram kese kese moo ko ñor ci jàmm bi lu mu wax mën na koo doy loo ba xam waa ji mën naa wor wala mënta wor waaye ngant yi tax nit du wor daal charia al islamiyya moo naan nangam ak nangam ak nangam lay doon du doon loo xam ne nit ki daan ni ma foog nekk ma jàpp nekk ma yaakaar ne rek maanaam na zanna wa axwatuha kon ba muy lim limal na ca woor weeru koor su dul ñaareelu tomb yi di ñetteelu tomb waaye lu ci mën a am daal ci mag ñi la bokk waaye ba ko yonent bi waxee ba ne kutiba aleykum siyaam am na ku ne ca ne ko waaw ndax weeru ko rekk la yonent bi ne ko déedéet ah kay weeru ko rekk la ndax dane ko ndax am na yeneen i koor mu ne ko déedéet weeru koor rek la xanaa bu ñu waree rek nga umaat yow ci suba sa ba ca bisu tabaski nga dogaat wéyaat bu la neexee waaye weeru koor rek a ca war moom ba yàgg mu ne bàyyi leen laaj ndax su ma ne woon cell wala ma ne axakay da ngeen teg seen bopp lu ngeen mënut laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasuk li ko tax a bokk ci mag ñi nag mooy ku xëy xëy bàyyi ko te amul lenn ngant moo bàyyi julli ñoo bokkum àtte kepp doonte manes naa bañ a jaar ak moom fa ñuy jaar ak ku bàyyi julli ndax par nit a koy def waaye dañ koy àtte daal àtte ku bàyyi julli nañ koy def moom te loolu sëñ mag bi jàngale na ko ci ay téeréem ku dem ci tasawudu sixaar wala nga dem ci tasawudu shubaan da nga ko ca fekk mu ne wét kon bu ñu xamee ne weeru koor waajtaay mi ngi tàmbalee ci séentu weer na ko nit ñi def yitte buñ ca duggee it nañ xam nañuy woore mooy ni ñu bàyyee lekk ak naan ci bëccëg bi ak yañ sañoon yépp ci bëccëg bu dul weeru koor nañ xam ne noonu la ñuy woore euh, su ko defee nag am na ngëneel yu ci suñu yu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dige booba jullit yi xamaguñ ko niñ ko war a xame dëgg-dëgg <clears throat> doonte santaane suñu boroom la bu jullit bi sañ bañ sañ bañ yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla nee na nit ki li muy def lépp lu ci nekk sañ naa taxaw tàllal loxo yàlla ne ko fay ma mu ne ko lu tax mu ne ko ba ma koy def damaa toog ba mu ba sama xel ne yar na ci yow rek ma defal la ko yàlla ne ko waaw waaw loolu de wax nga dëgg waaye nag nee na ba mu des weeru koor weeru koor moom yàlla moo xam lam cay fay jullit bi yàlla nañu dimbali ba ñu defee ko noom ko santaane nee moo koy fayal boppam du yebal kenn bu koy fay du calculer li nga defoon nu mu toll day tibb di ñaag di la jox daan ne lii tax a am pay suñu borom ci koor nag mooy ku woor na jàpp na def koor gi pakk pakk pakk mooy li xarekat yi daan yor lu mel ni palaat lay doon ab layu bu caawee moom bu ñu ko bëggee caw mu tàllal ko mu dal ca palaat ba walla layu ba daan nekkoon koor ci ab julit pakk la na ci jànge lii bu wooree bu ñu umee rek mu génn ci caaxaan yépp caaxaan nag waxuñu yu mag yi waaye kaf ak ree sax bu ñu ko fontoo bu mu xuloo bu mu saaga buñ ko saagaa wala ñu bëgg a xuloo moom sax na leen wax ne man damaa woor sëñ bi damaa woor nga baal ma damaa woor dal ne nag ku woor yendoo diñe diñe bokk mooy bañ a añ yendoo bañ a naan ndox lii dem ci gémmiñam daal ci ndox mooy gàllaxandiku di jàpp kese loolu moom bari na si ñoom ñu sàggan ñoo xam ne ñàkk fonk seen gémmiñ cig cat day tax bu jënt yi wëlbatikoo rek kum jublu man ngaa sakk say bakkan waaye yonent bi nee na yàlla nee na loolu bu mu leen ko yàqal ndax xet googu génnee ci gémmiñu koor moo dàqal yàlla fuuf bu yemal xiyaamee xetug misk wala xetug laj ko lañ giñ xam dan daan ne ki woor nag bu ëllëgee ki woor am na yaari mbégte yoo xam ne kenn mënu ko caa wóotu mbokk yi danañ xam nañ ci diine ajale nit ajale ko dem def la muy def féetewoo coono ba yéene ko yool ba mu wàcc ko waaye woor nag moom neexut a defal nit doonte mënees naa fayal nit ku yoroon borob ko waaye nag bu dog jotee la muy yëg kami kam kami wooral mënu ko caa yëg moom fii ci àdduna àllaaxira moo tax yonent bi nee na yàlla nee na ku woor am na ñaari mbégte yu muy bég yoo xam ne kenn mënu ko caa wuutu bu njëkk ba mooy bëccëg bu tàng bari ngelaw ñi tàmm ventilateur wala climatiseur courant coupé ñëpp yendoo comaaytu ba ñu naan juróom minute ci des ñu taaj yëpp bokk yi foofu ba ba ñuy sone wala ñu fëgg wala ñu wax ne dog jot na ndiggante soosu ñaan dog jot na ba mu waaxu jëm ca tàndarma ja waaxu laa ko tudde rek mooy gaawantu mbëkkee ngi moomu foo xam ne fii li ci nit di yéege kenn mënu ko wax kenn lu gone lu coowul gone bare bare kenn du ko dégg ndax bëgg a toog waaye nee na yowmal xiyaama lay raw yàlla nañu ci yàlla jotale daan ne koor it bokk na ci lu yàlla dencal nit ñi ci moom ëllëg mook alxuraan mi nga xam ne ci weeru koor la jëkk a wàcc bu ëllëgee ba nit ñëpp tiit kenn ku nekk peese xam la muy am kenn ku nekk xam fa mu jëm am na ñoo xam ne mën nañoo rafet njort ci ne ñoom aljanna lañ jëm yàlla nañ ci yàlla boole waaye nag bu ñu sañoon àjjana sangam la ñuy dem te lañ doon am am nañ ko ba noppi am ñoo xam ne moom peese nañu mataluñ te poids bii ñu yor buñ ca yemee mën nañoo dem ci geneen kër yal nañ ci yàlla musal su booba yàlla day dem ci registre koor ak alxuraan xool ba xam nu nit ñi defoon ak ñoom koo xam ne koor gu mas a fekk ci àdduna tam fekk mu wér woor na ko kem kattanam yam ca munta wóor ay bis ba koor ga jàllee fay na ko gëm alxuraan ak lim indi lépp te daa ko jàng kem kattanam te tënku ci ateeb su boobaa suñu borom day def koor jëmm ne loo xam ci waaj yi mu ne kii day e, tabarakta wa taalait subhanak wa bi izzatik bàkk ko daal ni mu ko war a bàkke waa jii day euh, man mii maa taxoon bu ramadaan akse mu ne ngam du lekk du naan bépp bànneex bu ko daganoon it ci baraxlu wi walla kore gi du fa sax yendu ba xelam da ca dem loolu dama mën na koo seede ci moom yàlla ne ko ah léegi loo bëgg ma def ko ci moom mu ne ko tin ma ci moom tin ma ci tin tiin mooy ñii ñuy jàpp di leen yóbbu dugal leen ci fu xat ñu nekk faak mbooloo bu dee jamonoy léegi dañu daan kar nit ne ko xamal ko ne ko ma nga barab sàngam kooko daal di lagg dem na leen kee xam naa ko lii laa laa ñu daal koy bàyyi loolu mooy tinu yàlla ne ko ah yow de ku la taxawoo woon noonee mënuma am na moo koy def kon àndal ak moom dem fi nga bëgg a yóbbu moom fi nga bëgg a ànd moom waaja ja bàyyi fay moroomam faw bàyyi fa aw nit ndax dana fekk aw nit dana fa bàyyi aw nit yàlla bu ñu bokk ca ñoom fay bàyyi am na ñoo xam ne yàlla dana alxuraan loo xam ci waa ji alxuraan ne ah bu weeru koor wi koor mii li mu wax de lu wér la ndax bu koor masaan ñëw du lekk ba cëg du naan du def benn luy niroog bànneex waaye bu guddi masaan jot nag ba nit ñi ne baasin yàlla baasiin yàlla ñii fas yéenee nelaw ñii fas yéenee dallu danaan fojjat bu dee julli mu julli te kuy julli alxuraan ngay jàng su loola mu jël alxuraan di jàng di sattantal aayaat yi ba ba muy nelaw yàlla ne ko loo ci bëgg mu ne ko tin ma ci mu ne ko àndal ak moom daam mbokk yi ku weeru koor ak alxuraan ànd tinondoo te kenn ku nekk am may boppam xelam dana dal te fii lañ koy fàggoo fii lañ koy fàggoo bokk yi bisa ngi ñëw boo xam ne alxuraan ko wax yawma yafirru almaru min axi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli mriin minhum yawma idin sha'nun yuxniih bisa ngi ñëw léeg-léeg nga wutali benn waaye ne ko yaa ma ne woon nangam mu la dama la mas a xam dañ koy waxante ba ci ba nit da koy wax baayam wala baayam wax ko benn mu gën a jub baayam ni anbiya yi ak seeni baay yenn yi ñenn ñi ak seen baay ñenn ñi ak seen doom am na ci yonent yi sallallahu alayhi wa salaatu ak seeni soxna ak ñu àndoon ak ñoom te ànd ga wérut ndax mënoo ànd ak nit mu jëm penku nga jëm sow ba noppi naan moom moo ma ànd ku ànd ak nit fu mu jëm da fay jëm moo tax bis boobu lu mat a waajal la te fii dong lañ ko mën a waajale dëgmal nii ne ah diw dee nga ne di ko yàkkawle ko mu romb la jàll nga ne ko déet xanaa kii diw mu ne man a kay ah diw la ma waxoon mu ne lu ma la mas a wax man kay fii lañu ma a gisante yàlla xam na ko yàlla ne déet man kay bële ma ci tudd bële man kay bële ma tudd ne ku nekk kay ñëw wax ak man li ñuy wax rek loolu nag bokk yi fa façon ngi ñëw boo xam ne muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne it euh, bu ëllëgee ñay dem aljana sax seeni aljanna danañ rawante ci kenn ku nekk nu mu jàppe woon koor gi ak nu mu ko taxawee woon nee na am na bunt boo xam ne rayyaan la tudd rayyaan nag ku fa dugg aw maram day jeex ak ray mooy suuxat ci mbay di wal ndox mi muy dem ci garab yi dañ leen fa fekk kooku rey yi lay def kooku rayaan la ci garab ya bunt boobu nag rayaan la tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu yawmal xiyaama buntu boobu day ubbiku ci ñiy dem aljanna dañ koy ubbi ci bunt aljanna yi la bokk waaye buñ ko ubbee dañuy laaj ana ay na saa imun ana ñu daa woor kenn ku nekk mën naa xam boppam ndax ku nekk yawmal xiyaama day am mandarga mandarga bu ñëwee ci alquran muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjada yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhim min athari sujud mandarga mandarga yi nag bu ñu ne ana ñu doon woor ku ci bokkut mënut a wuy ji ndax du dégg du dégg paas bi du dégg mot de paas bi su ko defee ñooña suñ duggee ba ba jeex takk ñu woote woote kenn ñëwaatut nit ñi def buntu avion boo xam ne mi ngi bëgg a dekkule passager yi jëm dëkk sangam léeg-léeg sax ñu jaar ci turu diw passager diw jëm barab sangam wax nañ ko benn yoon ñaareel bu ñettee dañuy tëj bunt bi avion bi dem ñëpp dugg ñu tëj bunt ba keneen dutu gat waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bokk yi nag kon ci tënk koorongu noonu ci mag ñi la bokk te dëgmal si na mu ngi tàmbali ci séentu weer wi ñaareel ba taxawu ko ci wax ak jëf sëñ bu mag bi sax euh, damm na aw lay bu ñu demee ci mbindam danañ ca fekk bi muy lim ponk lislaam yi benn bu ci nekk mu way ca ay way leer nañ ñàng mu gàtt te yomb bi muy wax koor moom ab atteem ñaari yaari bayit kese la te ma ko tàmbalee siyaamu naa ñun jullit yi ginnaaw suñ bi bind siyaamunaa ñun suñu suñu koor ñun jullit ne ku ci génn yaa ci génne sa bopp siyaamuna lahu faridataani bila ziyadatin wala nuqsaani koor daal ñun jullit yi suñu koor ñaari cër la am ñaari cër maanaam euh, ñaar la ci mënut a ñàkk yoo xam ne yow mën naa xam amut dolli amut wàññ yaari farata niyatuna wa kafuna an muftiraat li wajhi baaqin mut'imin bi tayyibaat bu jëkk ba mooy fas ko yéenee def ci buñ ne weer wi feeñ na nga fas yéenee woor weer wépp fas ko yéenee woor fas ko yéene doonte am na ñu wax ne bis bu set da koy fanaanoo am na ñu ne déedéet ku dugut ci weer wi moom benn bis mën na yéene jëkk ja mën naa weñ moo ci jiitu fas ko yéene bañ a topp rek dem ci kër fekk ba mu fay xëy wóorutoon gone ya sax kum laaj mu ne ko damaa woor mu ne ah lii de wax dëgg yàlla kersa la nag man de kon damaa woor kon ma munta dabi koor ga xanaa bu ngoonee mu fas te jéem a fay fas eh, jéem a fay fan ja ko wees waaye fas ko yéene moom mënut a ñàkk dangay dégg sax ñu naan maa ngi dem bara sangam fas yi loola de am na njariñ su fekkee kafe yi ñëw ñu di ko fa fekk dana leeralal nit ñi àtteb koor ak ku ko bàyyi te tay ko te amul ngànt su boobaa jar na wuy ji ko waaye barab sangam lañ koy def fase moom amul benn àtte ci diine buñ xam lam doon jariñ daal mooy ka fay dajale nit ñi wax ak nit ñi lan mooy koor gi luñ ci war a def ak luñ ci warta def luñ ci jéggale ak lu koy yàq ak luñ ci si su boobaa jar na dem ndax mënut dem kenn ku nekk ci sa kër mu fekk la fa wax ko yow kon fas ko yéene mënut ñàkk ñaareel ba mooy fexe ba lépp lu ñu dee dog koor rek nga wan ko gannaaw loolu ci farata yi la bokk ci farata la bokk fexe ba bañ a dog ci koor gi ak lépp luy dog nit Euh, sëñ Falilu Mbakke mi mësoon nekk Touba moom ko moom daana wax ci bis bi nga xam ne ci la nit ñi di fas si ci pénc mi bokk na ci lan daan wax suba la koor gi tàmbali euh, booba li waa dëkk bi amoon ci lu ñu gën a fonk nga xam ne daana ñaanal nit mu fekke buy mat muy jumaa ji daana wax ne ah koor gi de suba lay tàmbali te liggéey bi jumaa jaa ngi nii dëgmal na ñu ngi ci digg bi suma baa ngi tooy waaye bu subaa ku mën a boole liggéey beeg woor na ko boole ku ko munta boole na bàyyi liggéey bi te dem woor te ku amut loo wooree ñëwal ma jox la ko daal dagg lay yëpp fàq lay yëpp bu demee ba am fukki fan daana jël rajo bi ci biir këram rajo bi dañ ko wékkoon ci jumaa ji foo toll di ko dégg mu ne fukki fan yi weesu na waaw leen góor suba la ñuy tàmbali fukk yi ci digg bi la ma waxoon lay waxaat ku man ku ko mën a boole liggéey bu mu mën a jàpp dëkk bii ñu nekk fi ñu ko daan liggéeyal la bokk daane fi yónnee ne ku ko mën na ko boole ku ko mun wàcce naa ko ba koor gi jàll ku ko man mën a boole ndax lii santaane suñu borom sañ bañ te lii sañ santaane la boo xam ne kum kum kum soob def kum kum soob ca ku amut loo umee kumteel fukki fan yi ci digg bi ñëwal ma jox la ko ba ba ngay ware kon boog loola mooy yeesa yeesaat rek yàlla nañu si yàlla yóbbu jàmm te ñu am ci tawfiq ba man koo taxawee ni ko suñu boroom santaane ba mën a jot ci ay yoolam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin TQG am na enduit flex contre humidité maanaam mur buy tooy teew a bàyyi wala mur buy xolleeku am na itam Coleflex pour terrasse buy senn TQG am na ay xeetu peinture yu baax pour ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci boori géej te seeni peinture di furi wala muy xobbeeku TQG am na machine à bu leen di génneel couleuru peinture bi ngeen mënti bëgg ci juróomi minute yéen ñi faral di am humidité si seeni tabax wala seen terrasse di seen wala ngeen bëgg peinture décoration pour seen salon dem leen TQG su ngeen demee TQG seen soxla yëpp ay faju TQG notre force la qualité. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kenkaayeri daaru minam waa kër sëñ Abdou Akim Mbacké moo ngi fii ci Touba tableau hôpital Matlabul Fawzeyni lépp lu ngeen aajo woo mu aju ci wàllu quincaillerie général lu ci mel ni plomberie ak sanitaire matériaux de construction lu ci mel ni ciment fer ak béton matériel électricité ak menuiserie ba si étanchéité adresse bi benn la quincaillerie Touba Darou Minam yéen ñu nekk bitim réew te bëgg ku leen taxawul seenu tabax adresse bi benn la da ngeen fa fekk gérant bi di Serigne Mohamed Lo mu ànd ak ay ndawam yu xereñ taxawul leen ci lépp loo xamante ni moom ngeen aajowoo mooy ñaanal xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér